asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di leen bëgg a yeggee nag kàddu yoo xam ne si nii kàddu yu intéressé képp kuy liggéey ci réseau bi la te naqar wii ak tiis wi dal ci suñu kaw muy mbir moo xam ne ni ñu ko gisee ta jàngate ko man ko nettalee mooy mbirum jaay doole kese la waaye nag ñun boo gisee ñu jàkkaarloowaat ak presse bi ndax démb def nañ ko te ñi ko def yoon da leen a jël si téye leen jiñ leen leneen lu bokkut ak li ñu wax ñoom ndax kenn ku ne seetaan na vidéo Ibrahima Gueye mu ne dañ maa jàpp ne ma da ngaa dañ laa localisé localiser bi nga localiser nit ki nga fay alal yëkkatewaat yeneen alal tegaat ko ca te yow gisoo ki nga ne moom moom appareil bi ñu localiser bindul la décharge ngir ëllëg bu coow ma ne am nga man a ne lii kat ba ma ko fayee lii lañ ma jox. borom plaignant bi ñëwul kooku sañ nga koo dénoncé. mu taxaw def déclaration bi ñëpp gis ko dañ koo jëli même 15 minutes maa ngi dégg ci journal yi tey ñu ne dañ koo jiñ receveur Ibrahima Gueye du receveur ñoo sasuloo place kii lay liggéey décoté ay téléphone te mbir moom muy muy muy muy dénoncé ba ñëpp di ko dégg ñan ko fa def ëpp nañ téeméer ñan ko fa def ëpp nañ téeméer ñun nag dañoo xëy ñëw fii ci commissaire comme que mooy kilifa gi ñu yëgal ko li nga xam ne as ndawam def nañu ko ñun nag am nañ yeneen kilifa yoo xam ne maa nañ caa jaawale ndax ñu ay donga daara lañu dëgg la waaye dañu ñëw kii gone bu la tooñee doo dóor da ngay dem ca baayam ñu ñëw wax si ko ko di diglu nag réaction am nu mu ci doxalee ñu ngi koy diglu te liñ bëgg mooy yoon def liggéeyam képp ku nekkul ci yoon ñu teg la ci yoon ñun ñii di wax nii dañuy jël suñu risque di wax ndax xam nañ buñ paree menaces yaag yëpp a ngay tege waaye ñu rëgaluñu menace loolu xam nañ ko ñii ngi gis taxaw ñëpp kenn ku ne témoigné ci fa nga jaar moom fi Ibrahima Gueye jaar wax ko foofu ngay jaar wax ko waaw fu ko raw kon na ngeen xool ñii ñëpp ngeen diglu leen ñu jottali leen information bi man Ibrahima Gueye ñoo dend place may témoigné ne man lii ñuy wax ci moom du amul Moustapha Ndiaye Ibrahima Gueye ñoo sos benn place day décoté jour jour euh, Korité bi ñu koy jiñ na ñëw na ci marché bi sax xëy kon na diglu ñi ñu wax leen li am marché dëgg dëgg dëgg dëgg kilifa yi nañ diglu nit ñi sonn nañu marché occas sonn nañu xale yi dañuy liggéey koo ci gis yor na ñaari soxna wala benn soxna yor këram yor ndayam yor baayam di yaxantu di yut sa njaboot kenn dégguñu ci histoire te kenn dàqunu ko waaye yar aki teggin lañ bëgg di doxee ci dëkk bii na ko kilifa yëpp dégg nit nit ñi sànneew xeer ab élève ko def donga mën na ko te xeex du jeex ñoonuñu yàlla nag xeex ci dëkkub Sëriñ Tuubaa bi dinañ dem ñu doog nag jéem a jël suñu solution te solution bi gën a lënu ñi ngi ñi ngi woo commissaire nag mu ñëw saafara mbir mi nu mu gën a gaawee ñëw nañ tekkunu ko fi ab am lañ fi fekk mu nañu li ñuy wax dégg nañ ko den ko jottali kilifa bi waaw ñun nag demuñu ndaamaatu fii lañ ñëw commissaire li ñu ko wax wax nañu ak moom dégg dénk nañ ko dénk nañ nañ ko diglu nag fii yëgg ginnaaw suba bu ñu waxul lu ñu yanu maanaam dinañ leen woowaat ñëw ñu waxaat lañ ko jëlewaat ñun moom wax dëgg yàlla duñ dee ci rondal te sonn nan te sonn te dañoo sonn dañoo sonn nag waaw sonn xam nga yéen dëkk bu dëgër bi coronavirus bii nit ñi yoratuñ benn dërëm ngay fayee ko ay 100000 francs ay 200000 ay 300000 doo am benn këyit sëñ bi lii dafa rafetul marché bépp ñun lañ toog di ñu xaar nañ ko xam mën nañoo mobiliser lu ëpp personnes léegi léegi kay te nag bu ko jot bu ko jaree dinañ ko def te ñoom ñëw seen kilifa wax buñ ñun am nañu suñu kilifa te ñun nag boo kilifa rek anu jaaxal na muy sëñ Muntaxa suñ bu ñu yuuxoo fii kenn fajulum suñu yuuxu ñu yuuxoo ji ko ca kër suñu Muntaxa yoon lu mu na may dañ koy jël dañu lu ñu may rek lu mu laaj rek dinañ ko def insha allahu rabbi lu mu laaj rek ndax benn gis nga boo àndee sa nawle ñu mbéj ko rendi boo dee tapet na nga xam ne yaa coy topp ñun nag danañ taxaw mais nag waaye sëñ bi duñu sonal police yi ni ñu fi bare tudd ñu kenn man moom wax dëgg yàlla mos ta lekk sama benn dërëm waaye ñii njàmbat li dafa bari te man marché laa nekk fukki at maa nga fa du dëgg kon nañ teg mbir mi ci yoon ñun ay citoyen la Touba gi lañ dëkk bëgguñ lu suñ Touba am kon nañ ñu jaarale fi ñuy jaarale nit ñi. su a gone bu la tooñee bul doot bul dem ca ndey ja demal ca baay ja ah, doom bu la tooñee bul dem ca ndey ja demal ca baay ja yaay lu nga ko doomam wax mu gëm ñun dañu dem ci ndeyu mbir gii fi la ñuy ñëw ñun moom lañ xam wax ko suñu doléance duñ dem ci ña nga xam ne moom ñoom xamuñu lu ñu liggéeyee lu ñu ñëw ci kenn xam ñun waaw kilifaam lañ jëw ñun te bu buñ jugee ci moom dañuy demaat suñu kilifa noonu waaw di leen leen may ab ab bu néew rek bu néew di leen diglu nag mbir mi ñu teg ko ci yoon mu leer nañ